waxoon naa ko léegi Muniru Ngiraan euh, euh, seen mag xalifa Ngiraan mi ngi nii ci kaw waxtaan na fi sànq ci góor gi waxtaan wu amaanaa te loolu rek lañ koy doyee bu ko defee sene su Ngiraan neen bi am na ku war a sànni ay kàddu ci ñoom ñoom Babacar Ngiraan ñoom it ñu sant leen seeni taxawaay yi nga xamante ni am nañ ko ci dëkk bi xale yi nopal nañ ñu torop bu ñu dem suñu xel dal na ñu dem fenn ba toog ñu ne xale yi ngiraanee nii ña nga fee di histoire doo ko dégg xam nga lan ngay dégg ña ngay liggéey di bëgg dara di kër kër yi waaye daa ñëw sëñ fàllu ne ko dama bëgg kër mu ne ak ah, kër rek mu ne mu ne bindal kër mu bind mu ne ko bindaatal beneen mu bind mu ne ko bindaatal beneen mu bind mu ne ko booleel waa ji ne kër kër mu ne jógal kër këril boo kër këree lee nga am kër waaye Amadou xale yi ñoom ñëpp kër kër def nañ yitte ba kenn ku nekk la nga waram am nga ko ngiraaneen gii nu dëkk boo demee Ndakaaru luye doo ko dégg kenn ku ne fa dëkk yaa ko moom xale yu am jom lañu jom jooju nag suñ mag yi lañ ko jële ak seen baay yi gis nga buñ ñëwoon ndakaaru fekk ñu wëdd ñu doon génnee noonu dong lay def nuyu kon nañ leen sant ñoom te gën a taxaw gën a fas jom ndax nun nu ñu mel nun wala ñii suñu doom yii ak suñu rakk yi nu ñu mel ñoom ñii kon ñoom ñu war a gën a góor-góor nag ba def résultat yu mag ñoom it dëkk bi mi ngi nii bañ ñu dara lépp loo xam ni dëkk bi soxal na ko war koo am daañu fexe ba mu am ko ku ñu dimbali ñu am ku ñu dimbali ñu am ko gis ko أين مني أين منه من لقاء بيني من لقاء جيران شيخ عمر جيران قرق جنينا من لقاء شيخ من لقاء أي دنيا أستاذ أنجران مرق وينا من لقاء بيني من لقاء أي دنيا شيخ عمر جيران سوبي سبي منصور من لقاء لقاء شيخ من لقاء اي دنيا شيخ عمر جيران سبي شيخ تيجان من لقاء شيخ من لقاء افلم شيخ عمر جيران سبي شيخ تيجان من لقاء شيخ من لقاء اي دنيا شيخ عمر جيران خم خم جوينا ويت من لقاء شيخ عمر من لقاء انك اين مين مين أين منه من لقاء أين من لقاء اللقاء لقاء ووصال بالمعالي قد يرى بين هجا قلبي من خيالي خسارة خسارة وسبب الباب قد شفى طيف الكمال تاب اصلا فاق فضلا جهر جهر محمد ما خفى بل ما خفى من في الثرى loolu maa ko nga jàng suuf xadri benn yoon nee na ak lu sax mukk bañ xam nga loxo mën na accident te ñu réparé. tànk mën na accident ñu réparé mais bopp accident dee rek. nee na boo jàppee ba pare si tooyaay bi nga jàng ina anzalna fi xadr benn yoon bopp ak lu sax sa bopp doo tëral mukk bañ di la yërëm nopp ak bët ak gémmiñ ak lam ba ci loos du la tëral mukk bañ la yërëm benn yoon rek la wax. Ah, ngi di nuyu gan fi teew muy góor di jigéen di mag di ndaw di leen ndokkeel ci tànk yi ngeen doxee dëkk ak dëkk di ñëw ci dëkk bii dañu feetale dañu toppale suñu tànku maam yi ak suñu tànku baay yi xeebuñu ko parce que jot ambul ni ñi jamono xat na kon buñ gisee benn nit sax dañoo war a am fierté ci moom rawatina koo xam day ñëw buub njabootam yépp ñëw koo ko ci ngiraaneen xëy na nag yaakaaroon naa tey sax xawoon naa rëcc pour man njóogu waxoon lépp waaye nag kon dama ñëw ci niveau bi nga xam ne moom laa ko fee muy jeunesse Nguiranene parce que lii nii euh, mag ñi ñoo ko samp muy ñi seeni baay ak seeni maam ñoom ñu bay ci waar woo xam ne waar woowu noonu boo xëy di ko natt mënoo xam waar wi nu mu toll ba ma dalee gis ñii ñuy bay ci waar wii waar woowu gëm naa ne loo jàmbaar jàmbaar boo amul yitte dëgg dëgg dëgg doo bay waar wi ñu toll te euh, xale yi nag am na ñoo xam ne ay jàmbaar lañ waaye du ñàkk ay benn benn yaafus parce que li Alaaji Njoogu di wax naan euh, gaa ñi dinañ ko def loolu loolu mbir boo ci bokkee te bu jubsee yaay dàq yaay dàq signalé yaay dàq annoncé suñu gàmm gi suñu bës bi jënd sa mbubb yu baax ne nga jël ñaari junni wala juróomi junni na maa ko ci def te bu ñuy dënane nga jël bool bu gën a baax nga ne samay nit maanaam day am day am loo xam ne moom lañu war a doxee parce que jeunesse bi nii e, e, ñi jógee ci àll bi fii di ñëw Dakar dañoo doxal sunna parce que seeni baay yii dañoo foxoon jógee ci dëkk bi dem Ndakaaru samp am lu ñu liggéey ndakaaru delloo si fayee ko réew mi ba tey kenn seen benn maas yabu leen ci ndakaaru kon boo fëxee ñëw ndakaaru fukki fan ak juróom yoo toog làmb ju mag am billet bu gën a néew dix mille francs lay doon man maa ci bokkoon 2002 ren mooy sama ñaar fukki at bi may njëkk bokk ci daara dañ ma waxoon yaay caatu tuur bi yaay séddale ataaya loolu mo ma moy sama ñaar fukki ci tour bi te dama xëy sama papa fu dimanche jotté mu ngab kurusam dem dajeeg ay moromam ma gis mu rafet defu ñu dul ay xayale la istighfar latif loolu amna lu mu sam ci ñun lu bëree bëree bëri bëri kon ñun tamit war nañu mëna jël yoon bobu diko dundu diko dundal te bañ wax ci ngiraane la bokku rek manam yor sol yor yor liñ nane yor say lex rek tanan dama ko yeyo wala gars def nañ ko esprit bi di nga wara changer parce que jamono dépassé na foy bako diw de sama mbokk la mën na wala mënal la da nga wara a jéem no ci tégué loxo parce que lu kenn di def bu ko ñëpp jàpp mu ef lool waye nak yalla euh, du sétane aw askan bo xamné barké amna ci ñom bu ñu amee fukk ju yaafus mu indi leen kenn ku ñaxlaf ko xam li yaafus ci tok li sétane mu góorgóorlu def ko ñuy ñaan ñu koy def ñu gën koy mën di ñaaxaat xale yi ñu wax leen demoo leen fu gën a neex ñëw ci seeni mbokk ci seeni kilifa tey it defoo leen lu gën sa papa woo la ne la ana nga recommandé nii ci tuur famille bi kon nañ jëw adhéré ci tuur bi nañ adhéré ci tuur bi parce que buñ ci ñëwee daañu doxal buñ ci ñëwul daañu doxal mbooloo mu ñëw yàgg naa noot mbooloo mu bari ku weddi xalaatal xare ba dara 313 ñoo gagné 1000 personnes et quelques kon mbolo mu new yàgg naa gagné mbolo mu bari kon donc yene yaakaar ci yiw yaakaar ne dañ ko ci am parce que dox ben jéego rek bu so wajur gërëm yaakaar na kooku fay bi récompense bi am na solo lol kon yaakaar boobu ñu ko yaakaar moo tax chaque jour rek buñ taxwé rek di waxé ton bi nekul né dañ leena bëgg jël ben affaire di ko teg ko wala dañ leen yéene lu bax bëgg buñ nan naan ñun ñëpp ñokay bokko parce que bëgguñu kenn toog fii ñun suñu génération di lim kenn par kenn mais man moom am na ñoo xam dama leen lim muy taale ngiraan bi bu góor mag ak ay sa ngiraan ak ay ak ay ak ay génération jàmbaar la xaaruñu ci dara bi mu waree réagir réagir na magee wuñ ko lu bëri te lépp loo xam ne ñu ngi koy def récupéré na ko suñu loxo ne bàyyi leen ñoo koy def loolu moo ñu may bu guddi gàmmu jotee ñu mën a sol mbubb mu rafet ñëw toog ci biir mooy loolu doon def dinaa ko def kon kooku am na mérite lii nag buñ ko gañee rek dañ koy bokkoo ñëpp ngir ne day dugg si biir nañu nañu nañu jéem a defaraat toogaay yi amaat esprit de dépassement xam ne ngiraaneen gii dañ fi daan ñëw buñ ñu ba colom ku am bu mu baax danga koy summi def ci sa saak parce que xam nga ne yaay jëm ci xare ba dar dañ daan puus ay cinq cent 508 ak ay g ba ñu ba ñuy raser ay pont ci àll bi buñ jubee colom dañuy summeeku. di buux ba agsi tey suñu borom taalal nañ yoon ba ci biir dëkk bi dañ daan niitu des fois ñu ne groupe bi gasoil bi jeex na wala groupe bi coupé na ñuy dem ak dikk tey suñu borom indi nañu courant ci bis bi mu jotee courant mënoon naa takk démb mën naa takk bërkaat démb mais secret bi suñu boroom def fi ñuy jullee jumaa lamp yi tàkk kooku yàlla ngiraan na jëm kaw maa ngi koy ñaan képp ko bokk askanu ngiraan yàlla na nga jëm kaw euh, lépp luy pakk daal di gaar ndaw di ko yàqal di ko kar ci yoonam yàlla na fi teggi waa Ngiraaneen ak képp kuy soppe waa Ngiraaneen ñoo ngi sant di gërëm di ñaaxaat bu baax xëy na kàddu yi fi mu toll nii dafa xaw a guddi mais bëggoon nañu bu na yaatu waaye ñu ngi sant xaaj duudu si jàng yu neex yi di yeesal suñu cofeel ci yow fu ñu déggee bu ñu xëyee sax sa yow la ñuy déglu daanaka si rajo oto yi ba ba ñuy àgg fu ñu jëm kon bu la gisee nga ñu defal en live dañuy gën a kontaan. sëriñ bi tamit xam naa dem ni waaye amel nañ ko cant di sàkkuwaat ñan ci mbooloo mi fii ma yàgg di joxoñ ñii toog yàlla ñu fi yàgg parce que ñoom rek laay mën a gis sama xel dal parce que même ba ci football da ngay gis jour bu nekk ci biir terrain bi di football ki ci banc bi mën ko ñu xam ne am na remplaçant mais ñii gisaguma seen remplaçant yàlla ñu fi yàgg te wér salaamaaleykum wa rahmatullah moom jël na wàllam ba noppi waaye yéen ñi fi toog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 ومن يقنط منكن لله ورسوله ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤمن يؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم ba noppi naaj waaye bala may tàmbali waaw dafa am lu ndaw lu may ñaan rek mooy mbooleem ku ne ci suufu tànt bi te gàmm ngiraane ni la nga ñëw fii te yàlla rek tax ñu ngi lay ñaan nga toog ba ñu ñaan ba noppi nga soog a dem ku ci toog ba ñu ñaan ba noppi bu ne yàlla na nga fekkewaat gàmmu gi ku ci dem nag xawma ci yow dara ndax miskul xitaam lañu wax loo gis ci àddina mujj ga moo ci am solo dundu doomu aadama sax la mu mujjee def soog a génn àddina ci la ko yàlla jugé ëllëg yubaasul maru ala ma mata alayhi kon loo gis ci àddina mujj ga moo ci am solo fajar jot na ba noppi li ñuy wax ñaari kàddu rek la insha allah baada audu billahi min alsheytaani alrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا كالشمس في ضحاها وأنزل إلينا قرآنا كالقمر إذا تلاها من اهتدى بهديهما عاش في ضياء كالنهار إذا جلاها ومن حاد عن نهجهما تقلب في ظلام كالليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi nuyu bokk yi fi daje yépp kenn ku ne sa tur ak ci sa sant ku ne xam na ni tànt bi wéet na ndax man li ma yëg ci sama yaram bokkul li ma daan yëg ci sama yaram jamono nag moo ni tëdde jamono moo ni mel àddina jeex na ba noppi ku êtes téléphone yi di suivre information serigne Bang koy wax sank la xew ci turki barki démb ben zalazil am zalazil iza zulzilatil ardu zilzalaha zalazil moy tremblement de terre 20 000 personnes ñak ci sen bakkan ñaar fukki te Ahmadou Zalazil gis nga fuma am. waaw suuf ay seconde la yëngatu seconde. ay seconde la wax de bu minute fan la fan la Il dëkk seconde la Ray fa personnes. fofu Turquie. zalazil foo ko dégg ay seconde la kattanu sunu borom subhanahu wa taala te li am turki mën na am fu ne ci àddina damay liir ci facebook bi barki démb ma gis benn waay bu nekk turki maa ngi ko gis mu bind ko en arabe mu wax ni nee na fan yee ci ginnaaw nga xam ni booba zalazil bi amagu fa waa ji ko luye woon biir këram nee na da ko doon topp pour lan pour mu yokk li mu ko doon fay parce que li mu ko doon fay dafa tuuti waa ji ne ko dimbali ma parce que man bu weer wi dewee bala ma lay fay fu ne dinaa fa dugg mu ne ko sama yónni wu ci li nga may fay di nga ko yokk nee na ñu teg ci ay fan zelazil bi am fa nee na mujj gi moo ko waa ji ñooy bokk di fanaan ci mbedd mi di taal matt di di jaaru وكي سنو سبحانه وتعالى ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال أحمد نيلي نيبو باخ دي لزيارة وي نيخنا لول تبارك الله ما شاء الله انا يالا غودل فان بي لي غين دي ديف لو ام سولو لا ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon ay way la suñu sëriñ si ci moom lañ ko doon ne yonent bi ku bëggoon ay way la da ko bañ ba dafa wuti woon menuisier wax menuisier bi ni ko daajal ma benn pojum xasaan ibnu saabit di ca yéeg di ko tagg moom yonent bi demal ci qasidatu chamaqmaqiya وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان للإنشاد فيه يرتقي ما جاء قصيدة مهلا على رسلك حاد الأينقي ولا تكلفها بما لم تجد قدم بتبير مني وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان للإنشاد فيه يرتقي كوكو بغون bëggoon ay way la parce que xam na way li muy jariñ لين ñu sant leen bu baax di nuyu sunu wayjur yi nekk ci kaw di jiital ci nuyo bi sunu kilifa gii ñu àndal di xalifa Ababacar Ngiraan nga xam ni tey moo fi góor gi loolu la yàlla dogal ñu nuyu ko bu baax tabaarakallaahu ziyaara ko bu baax a baax a baax nuyu ay rakkam yépp macha allah xaaji njoogu ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar tabaarakallaahu suñu baay bay Modou Ngiraan bay Modou Mbub ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar nuyu baay Malick tabaarakallaahu di nuyu Baye Alsaan macha allah xaji Pap Ñang xaji euh, As As Ngiran sunu mag tabaarakallaahu kàddu yi am na solo dafa mel ni fajar jot na ba noppi te man li ma dese ci waxtu bu ma sañoon du ma ko jeexal ci ay nuyoo wax dëgg yàlla dama bëgg a dugg directement ci waxtaan bi rek luñ ci am rek ñu doyloo ko ba beneen yoon. <laughs> Ahmadou. gis nga nitu yàlla booy ànd ak moom dangay ànd ak moom te yàlla tax nitu yàlla kenn du ànd ak moom te yàlla taxul ñu bari ci ñuy ànd ak sëriñ si loolu moo leen alal dañ koy wax tax ci seen biir di wax ni ku la ku la dul ku la amalul njëriñ fii du la amal njëriñ fële loolu njumte la ñu bari dañ koy wax mm-hmm. sëriñ bu la amalul njëriñ fii منو لا عمل نجرين فلة نجوم تلا خنا أكون بعدي عندك سرير بيا الله تقول ينت يا عيسى عليه السلام دفع عن بين تالبين تالب بين يو جبل ينت يا الله عيسى بس جوت نيوم نيار نيو عند جيتوكي ñu ànd di dox di dem yontu yàlla Isaa yëkkati ñetti mburu jox ko taalibe bi ni ko garde ko bu ñu demee ba ci yoon bi bu ñu xiifee ñu jëfandikoo ko mook taalibe bi ñu ànd di dem ba sonn ñu toog ci benn taatu garab di féexlu Moussa ne ko ana mburu yi ma la joxoon waa ji génnee mburu yi mu nekk ñaari mburu te yontu yàlla Isaa ñetti mburu la joxoon waa ji taalibe bi Isaa ni ko ana benn mburu ma mu ne ko ah gisuma ko de moo tax gis nga dëggu xaaju njoogu dëggu loo ko jënde ci àddina jar na ko waaye nit ñi nag léegi tabaarakallaahu defatuñ ko muy dara dëggu loo ko jënde ci àddina jar na lu ko ëpp ndax waykat ba day wax ni as siddiqu ku wax loolu Seydil Hadj Malick فهو زينة المريد نين التالب لا كوي تارال لا يتخ مرافت دو مبب مسول ناك نغا دي لا يتخ مرافت دو مبب مسول دو اوتو بو بومي دوال دو كير غو رافت بومو دك ني لان مو لان لان موكاي تارال موني دغو mu lu ñu sàggane lool da ngay dégg sëriñ Abdul Aziz ndeysaan wax na ko ba sonn mu ne nit ñi wax lu dul dëgg ak naan ci ndox mi la ñu te jullit dina def lu ne ba mu des wax lu dul dëgg yontu yàlla Isaa ni taalibe bi ana benn mburu ba mu ne ko gisuma ko mu ne ko ñetti mburu laa la joxoon mu ne ko ah, gisuma ko de yonte yàlla Isaa ni ko baax na ni ko gis nga kéwal gële gis nga ko mu ko waaw mu ne ko demal wool ma ko ne ko kaay wuyu yonte yàlla Isaa jazakallahu xeyran ab yonent am na darajay waxloo lu mu bëgg a waxloo ci àddina yonent bu ne am nga daraja am gis nga poto bii ma jàkkaarlool bu ab yonent jàkkaarloo woon ak moom bëgg a wax ak moom lu mu ko wax dana ko tontu ويدي يا لادل ينتي يا لعيسك ينتي القرآن موك نتالي ينتي يا نتالي ببي دمال نغا نيكو كاي ويو ينتي يا لعيسا تالي ببي دم بچي كي ولغي wax ko ko kewel gi wagneeku di dox di dox di dox ba aksi ci yonti yonent yàlla isaani taalibe bi jëlal kéwél gi nga rendi ko fees ko jël yàpp wi ñu mën cee jëfandikoo taalibe bi jël kéwal gi rendi fees jazakallahu xeyran bi jël kéwal gi rendi fees ñu jël yàpp wa ñu jëfandikoo ci ba ñu jëfandikoo ba noppi yonent yàlla isa jëlaat yax yi dajale ko ak derbaat lépp dóor ko ci bopp kéwél gi kéwél gi jugaat ba mel ni kenn mësu koo rendi yontu yàlla Isaa ni ko ci barke darajay ki ñu may lii ci darajay barke ki ñu may lii maa ngi lay ñaan nga wax ma mburu mi foo ko dugal waa ji ne ko billaahi gisuma ko yontu yàlla Isaa ni ko gisoo ko mu ne ko waaw mu ne ko baax na nañ dem ñoom ñaar ñu continuer di dox di dox di dox di dox ba agsi ci benn géej géej gi mi ngi yaatu yaatuwaay boo xam ni foo ko natt weesu na ko dangay xool ba fa sa bët yam waaye doo xam fu mu fu mu toll. Amadou am na benn téere bu tudd alfu laylatin wa layla hmm. xam nga téere boobu. alfu laylatin wa layla. alfu layla wa layla. téere baa ngi tudd yi guddi ak benn junniy guddi ak benn boroom téere bi da koo topp guddi gu ne mu nettali la ci histoire bu yéeme. toppaat beneen guddi mu nettali la ci histoire bu yéeme di ko def di ko def ba muy junniy guddi ak benn mu bind téere bi tuddee ko alfu laylatin wa layla junniy guddi ak benn toll ci ñeenti tonnes di di di quatre volumes di ñeenti mujallad ñoom ñaar ñu continuer jazakallahu xeyran ba gis géej gi yontu yàlla Isaa ni taalibe bi gëmmal taalibe bi gëmm ñaari seconde mënu ko xippil mu xippi gis ni depp traversé na géej bu yàgg maga ca tefes ga Isaa ne ko ci barke buur bi ñu may lii dama lay laaj ana mburu ma waa ji ne ko gisuma ko mu ne ko baax na ñoom ñaar ñu continuer di dox di dox di dem di dox di dem ba gis ñetti jalu or ñetti jalu or ñoom ñaar rek ñoo ko gis moo tax gis nga nit yàlla booy ànd ak moom il faut faire très attention dina la seetlu ci côté bu ne sëriñ si sax léeg-léeg dañ koy def di seetlu taalibe yi di la nattu dinañ nattu sa pas-pas nattu sa dëggu nattu la ci lépp di xool ba xam fan ngay mujj bi ñu gisee ñetti jalu or yi Isaa ni ko ah, lii de séddale ko dee daal di yomb benn bi maa ko moom bi ci des yaa ko moom beneen bi ci des ka lekkoon mburu ma moo ko moom waa ji ne ko man mii maa lekk jërul yow bi benn jalu bi man Aïssa maa ko moom beneen jal bi ci des yow yaa ko moom parce que ñun ñaar rek la beneen bi ci des nag ki lekkoon mburu ma moo ko moom waa ji ko billaahi maa ko lekk yédee bu santul dina ma jaaxal de jazakallah xeyran jërëjëf maa ko lekk munu ko ah munu ko waaw xanaa waa ji feeñ na bàyyi may téye rek xaj njógu jamono neexul xanaa kon waa ji feeñ na yontu yàlla Isaa ni ko yow kon danga àndoon ak man te yàlla taxul àddina moo tax nga ànd ak man gannaaw àddina moo tax nga ànd ak man suñu ànd dañ koy yemale fii jëlal ñetti ñetti ñetti jalu or yépp ma may la te nga bàyyi ma man ma dem sama yoon ñu ñaar suñu ànd fii lay yem tey waaja toog fa di xalaat ñetti jalu or yi naka lay def ba ba ba jariñoo ko naka lay def ba évacuer ko ba yóbbu ko biir këram toog fa di xalaat di xalaat ba timis fekk ko fa ñetti addu kalpe fekk ko fa ñetti sàcc ñu ko sa waay looy def fii mu ne ah man de sama or bi lay dajal ñu ne ko yow kaay jàpp ko tër ko rendi biñ ko biñ ko rendee jël or yi ñoom ñoom ñett ñu dajale ko xanaa kon waroon nañ ko war a mën a séddoo ku ci dee jël benn jal ñaar ñi daldi woo kenn ki ni ko dañoo xiif demal nga wutali ñu lu ñu lekk boo ñëwee ñu seddoo or bi waaj jóg dem fa ñuy wutee yàpp ba mu àggee kere la sant ba mu àggee mu dafa lekk ba suur waaw lakk lekk ba suur daldi jël ñaari mburu def ca biir mburu ma ba noppi nag poisonné ko ba mu fees dell mu ni su ma demee jox leen mburu mi ñu lekk ma jël or yi man dem sama yoon ndekete waa ji avant muy ñëw ñoom ñaarit waxtaan nañ ci seen biir ni ñetti jalu or daal bu ko ñaar bu ko ñaari nit séddoo ci lay na a sakkan waa ji gannaaw moom wuti na lu mu lekk nañu taxaw xaar ko bu ñëwee fii bala mu fiy nekk di expliquer gi ñu jàpp ko rey ko ba noppi jël suñu or séddoo waa ji naka la ñëw ak mburoom gaa yi song ko rey ko daal di daan comme dañoo xiif xaaral ñu jëfandikoo ci mburu mi lekk ci mburu ma ñoom ñëpp ñu ànd dee ñoom ñett ngi tëdd taalibe baa ngi tëdd yontu yàlla Isaa dem ci tukkiim dem tukki ba ba wàññeeku fekk leen fa ñoom ñett ñëpp ñoom ñeent ñëpp ñu tëdd mu gis ñetti jalu or yi mu romboon mu jaaxle nag parce que xamul nu mu demee mu laaj yàlla ni ko nag dimbali ma nag lii lan la suñu boroom expliquer ko histoire bi fa mu jaar ba fi mu agsi tey mënu ko yow yàlla lii loo ci jublu mënu ko képp ku dul wax dëgg ku bëgg àddina te doo wax dëgg fii laay mujjee ak yow nit ku bëgg àddina te du wax dëgg suñu borom ni ko fii laay mujjee ak moom mujj gi du rafet mukk moo tax yonent yàlla Isaa amoon na pouvoiru waxuma dekkal kéwél waaye dekkal ku dee mënoon na fekk nit ku dee ba am junni at mu dekkal ko waaye Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu dani woon bihi bishrun wa ixyaun li isa bihi qaala al aliya naaru kuuni déggal Cheikh Seydi El Hadj Malick wa ixyaun li isa déggal Cheikh Seydi El Hadj Malick boy firi da ngay wax ni bisrun mbekté wa ihya'un degna ben way waay firi wa ihya'un ak ak ak dund ma ne ko doo dem wa ihya'un ak dekkal ku de li isa ñen na yont yàlla isa isa amon na pouvoir fekk ku de ba am junni at mu dekkal pouvoir bobu yàlla joxon nako tax bihi bashirun wa ixyaaun li isa bihi qaala al ali yaa naaru kuuni xam nga yonent yàlla isa ko doy war la wax nga ko sànq ahmadu yonent yépp bi leen yàlla di yónni dañoo dafa xaar ba ñu am ñen fukki at mu soog leen a yónni ba mu des yonent yàlla isa ci à l'âge de 33 ans ci la ko yàlla yónni parce que moo nekkoon ruuxullahi waaye yëgoo ni boobu mu am dañ ko ko abal xam nga kan moo ko ko abal ci barke Seydina Muhammad la ko amee bihi la Maodo wax bihi ci barke yont yàlla Muhammad ci la Isa daan fekk ku dee mu dekkal ko waa kon yonent bi mooy kan sallallahu alayhi wa sallam kon Seydina Muhammad mooy kan ah, kenn قال العلي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يندي على إبراهيم بكون نمروز جابي نركو ساني تبير ساورسا جزاك الله خير نركو koo sànni ca biir sawara ba sawara dëkk bu tol ni moom la Namrus wax ni nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko remplir ay matt ba mu fees parce que Ibrahima la bëgg a taal ndax ñu noppalu ci waxam ji muy wax waa dëkk bi yépp di xam di di di di taxani taxani nañ lu mat weer ngir lakk benn nit sawara si tàngoon na benn peeru tàng boo xam ni picc yi naw ci kaw asaman si boko timé tiimee bi da ngay tangor wi dalay japp da ngay wodd ci bir sawara si ndax sawara su tang ngir rek ngir ben nit kep wessu na soxor jël ibrahim takko ko ci li tuddé man janiq muy mbaq parce que sawara si dafa tang ba kenn mënu ko kon il faut que ci père lañ ko mëna lañ ko mëna tak bu ko defee buñ ko wëndelee ba mu ba mu xiir buñ ko bàyyee rek directement ci biir sawara si la jëm sa turandoo xalilullahi yent yàlla ibrahim ñu takk ko ci man janiix ba sànni mu départ ba mu dépare jibril alayhi salaam dogale ko ci yoon bi jibril alayhi salaam dogale ko ci yoon bi mu ko bu fekkee yow la de awma soxla ci yow ibrahim ne ko bu fekkee yow la awma soxla ci yow ndax ki ma yónni yàlla xaw nu ko waxe di ilmuhu bi xaali an suali ilmuhu bi xaali xam gi mu xam fi ma toll doyna ma walis ma diko laaj dara ni ko lii soxla nu ko sama diggante ak yàlla parce que mo la gëna xam fi ma toll li ma soxla moo la gën a xam fi ma toll li ma soxla ñu sànni ko ba mu àggee ca biir sawara si ndekete lal bu jógee aljanna lañ ko tegal ci biir sawara si mu ñëw tëdd sex baaram bi meew di ca génn ñu yaakaar ne lakk nañu xool ko mu ti muy reetaan te fekk mi ngi ci biir sawara si parce que suñu borom moo ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima yaa naaru yow sawara si kuuni nekkal sawara mu annasa dañ koy jigéenal moo tax mu ni kuuni nekkal yow sawara si bardan di ab sedd bu ca tegul woon salaaman benn sawara dootul jariñ kenn waaye salaaman ba mu ca teg moo tax nga mën a am sawara di ci togg di ci di ci naan ataay di ci naan kafe moo tax mu teg ca salaaman ala ibrahima ci yonti yàlla ibrahima bihi luutun yunajjaa min quruuni dama ni avant loolu yontu yàlla ibrahima ci boppam kañ li li tax sunu borom subhaanahu wa taala ni yow sawara si nekkal di sedd ci ibrahima loolu seydil xaaj malik nee na bu ko yontu yàlla ibrahima amee mi ngi ko amee ci barke seydina muhammad به قال العلي يا نار كوني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لول إبراهيم منكو أم به تبارك سيدنا محمد به قال العلي يا نار كوني يا نار يوسورسي كوني نكل بردا بسد وسلاما بجم على إبراهيم لول بكو ينتي يالا إبراهيم أم منكو أم تبارك سيدنا محمد به يعقوب المرتضى بشير ينتي يعقوب عليه السلام ميغا خامني موي باي يوسف يونت يالا يوسف يعقوب موي بايام باكو فريرام يفخيلي بايام ديكو جوي باسيل مخا باي بي دي جوي يوسف بس باسيل مخا بي يعقوب مرتدا بصيرا مرتد اجي مجلا غاي واخ بصيرا دي غيس keroog far far tadda basiran bi alquran wax moom lay nettali foofu moom yontu yàlla yaquba keroog ba yuusufa jëlee mbub mi ne mbub mi joxal leen ma ko sam papa ñu jël mbub ma indi ko ci yontu yàlla yaqub jazakallahu ba mu ñëwee ci yontu ba mu ko tegee ci kanam gi rek dafa gis loolu bu ko yontu yàlla yaquba amee seydil xaaj malik nee na bihi mi ngi ko amee ci barke seydina muhammad bihi luutun yunajja min quruni luutun yontu yàlla luut <laughs> moo tax gis nga suñu borom Serigne Cheikh Tidiane si day wax ni lu xew nga ne yàlla du ko seetaan mu ni juum nga de seetaan na lu ko raw turki ay jullit fa ne turki réewum jullit la bërki démb la la fa seetaan suuf sa yëngu fa vingt mille personnes ñàkk ci seen bakkan mu ni loolu du ko yàlla du ko seetaan mu ni la juum nga seetaan na lu ko raw yont yàlla zakariya zakariya dafa dem di woote ci yàlla ay noonam dàq ko pour bëgg ko rey ñi yor ay yat ñi yore jaasi pour bëgg ko rey moom moom yont yàlla zakariya laa wax hmm. mu dawa dawa daw ba agsi ci benn garab xamul fu muy jaar ak garab kese la gis mënul daw te bu yéegee ci garab gi ñu fekk ko fi loxo xeyran léegi luy pexe mu wax garab gi ni ko garab gi damaa bëgg nga ubbeeku ma dugg ci sa biir garab gi ubbeeku yontu yàlla Zakaria daw dugg ci garab gi garab gi tëjuwaat garab gi dafa tëju rek gaa agsi ak seeni i yet ak seen i ak seen i xamuñu fu Zakaria jaar iblis saay-saay bi iblis saay-saay bi moom moo wàcc soppali ko soppali mag mu yore beeke bant di dox ni leen ku ngeen di war Zakaria ñu ni waaw mu ni mi ngi ci biir garab gi moo ko boole bu ko boolewul woon mu rëcc mu ngi ci biir garab gi bu ngeen ko bëggee rey xam nga ni ngeen def ñu ne ko waaw mu ni wuti leen si si si si yi menuisier yi di siwee seen seen seen dénk yi wuti leen ko ngeen si garab gi bu ngeen daggee garab gi di ngeen ko daggaalee ñu dem wuti si te garab gi jël si bi teg ko ci garab gi di dagg di dagg di dagg di dagg ba agsi ci yaramu Zakaria di dagg ba agsi ci yaram bi bi ñu daggee ba agsi ci yaram bi mu onk na a sunu borom ni ko sa onk boobu bis boo ko dolliwaatee ma far sa tur ci diiwaanu yonent yi dootoo bokk ci yonent yi mu tëj gémmiñ nga ni pat ñu xar ko ñaar moom yonent yàlla Zakariya suñu borom seetaan ko suñu borom ne ko xam nga lu tax ma seetaan la ñoree la mu ne ko ah mu ne ko dangaa làqu ci garab gi te làquwoo ci moom bi ngay ñëw di làqu ci garab gi danga ma fàtte man yàlla waaye boo làqu woon ci man ma musal la nga fàtte ma làqu ci garab gi moo tax bihi luutun bihi luutun yunajja min quruni yonent yàlla luut moom mi nga xam ni du ngeen dégg xaw mu luutin mooy nitu yonent yàlla luut ya mooy ñi ñuy tuddee góor jigéen ngeen baal ma ci wax ji ñuy tuddee góor jigéen yàgg na fi du du du du du du démb la fi xew yàggoon na fi ca jamono yont yàlla luut luut nitam ña noonu lañu meloon ñoom seen yoon nekkul ci jigéen góor rek yont yàlla luut bu mësaan a am gan sax dañuy daw di xëccoo gan gi yàlla luut ñaan yàlla jibril alag leen xam nga nu mu leen alage jibril ñaari baaraamam la jël roof ko ca suufu dëkk ba yëkkati ko yëkkati dëkk ba ba sabi ganaar ya ci boppam sax waa asamaanu benneel di ko dégg mu dëpp ba noppi taw ay xeer ci seen kaw ñu di ko wax sa doom moo tax bépp góor jigéen bu mën a ne ah, fu mën a ne bu deewee buñ ko suulee malaaka yi dañ koy sulli yóbbu sa doom ak fu mu mën a deewee ci àddina ينجا دسنكم مسل من قرور تنجومام يا موي نونام يا بي هذا الذبيح فدا ذبح نانا به به هذا الذبيح فدا ذبح هذا الذبيح فدا ذبح به ذو الجب ينجو من شطون كاني نارونا رندي تي رندي تونكو مو ينتو يالا اسماعيل بونكو جوتي ام خار نانا خار مانكو جوتي نينكو جوتي تي بارك سيدنا محمد بذلف الكغيظ الماء عنه زلف الكبرم قال قه مو ينتي على النوح غيد الماء عنه كروك بني نيس لين نخم قال قتير منكو أمي بارك سيدنا محمد بموسى ينجى من شجون تبارك الله أبلاي دمي أريد به ذو الملك ملك كما تمنى بين لنا فنشكر كل دين دع الإطناب دع الإطناب قل كل البرايا أنيل, أنيل ما أنيل بالمبين من نبوتي عمل الحب للقفان على نبي وعلم آه، أجمعين سلام ربنا دائما عام بسم صفيا وقيل في رجب في ذلك العمل الآن سلام على المختار بالقرار على نبي وعلم آه. أجمعين سلام ربنا طير نعم أنا صفي من أسرابه لو تشريف بالمين التي حترى مرامين أيل جسود على نبي وعلم آه. أجمعين سلام ربنا دايما عام بسحبه دينغ سيد الحاج مالك وأسرى به الله كان من في زكين lu tax mu ni xanaa tashrifan li miknati ba noppi indi xatta xatta xarfu gaaya la xatta raa maa raa min ayihi ljusimi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wii ñu nekk mooy weeru rajab moo yaakaar naa mooy tombeek mooy tolloog ajjuma bii di ñëw de mooy tombeek ajjuma bii di ñëw ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab ci la yàlla riñaane woon yonti yàlla muhammad tukki boo xam ne kenn mësu ko def tukki boo xam ne mbindeef mësu ko def moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tukki keroog moom la Seydi El Hadj Malick di nettali ni yàlla riñaane na Seydina Muhammad tashrifan ngir teral li miknatihi ngir darajaam da ko da ko da ko riñaane ngir teralee ko darajay Seydina Muhammad xam nga boo amee kilifa mu def loo xam ne yow ba nga juddoo ba tey mosoo koo def te ba ba àdduna yi tukki doo ko def di nga ko bàyyi xel xam ne di sa morom ñu ni ko fu mu jëm mu ni xatta raa maa raa حتى راى بامو غيس موم يوننتي بي ما راى لامو غيس لامو غيس دال غيس نكو لول لا ني تودي تفخيم تفخيم موي غريال دارا بامو ري سي ياو با بغوكو سخ تود غاني لامو لامو غيس دال غيس نكو كذا الغمام الذي ما فيه فيه لول ماي تفخيم لا لا يوننتي بي غيس كروك بي سوري نيانغا da dafa rëy a rëy rëy rëy ba Seydil Hadj Malick bëgg ko sax tudd te riñaan gi riñaan gi ngay dégg yëpp Ahmadou trois heures de temps la li ngay dégg ñu ki net di ko nettali ci histoire riñaan bi yëpp bi yonent bi riñaanee ak bi mu ñu ñetti waxtu la lay bus góor gi damay tëj de gaawal bala maa tëj istamakkana tiibu oo wa kaada laibu shawqi wajdan yusiibu oo fajaa bi naxul ilaaji tabiiboo maa ngi ñaan ma yaa waay ma ne jàppale ndax dama yoroon njaboot barke Muhammad ak sob bàyyi mbay doon de bàyyi duuba taraqa ilaya استمكنت به حكم سيدنا ومن سعيبه بال تار وقدره فاسع ينقي لرسالة صدره وآسى بأمر الله يخدم أمره وسيره جبريل وميك إسراف أهلا بشمس بل بل بل borom raw du bàyyi leen gël maam Maodo si amoo morom ñëw leen ci man waaye ci barke bàyyi du kenn jafal nga yàlla sa borom waa rasuulu ñëpp yam tanti tegam si gal nga ko moo tax yàlla ne ma tappal Ibrahima garaat sa bàyyi ko daan wax kenn fekkewul man dong Ibrahim dong نعمة تبل نهدرة كيف تقول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته